Amis et fidèles internautes de la SCTV, bonjour et bienvenue dans votre émission Découverte. tey Découverte dafa ñëw fii HLM 5 Dans ki nga xamante ne mooy Ndeye Arame du di borom Benoy Design di yëngu couture Ndeye Aram, ñu ngi lay nuyu. maa lay fay Ndeye Fatou. bëggoon naa nga xamal tuuti Sénégal yow yaay kan ak si la ngay yëngu. man maay Ndeye Arame Cordignon borom Benoy Design di yëngu ci couture ak ay petit commerce yooyu ay saak dàll yëre góor loolu yëpp dañ koy def daal. couture nekk li nga xamante ne danga koo jàng wala duñ la si poussé. waa dama ko jàng nag ndax bi ma bàyyee jàng toog naa doon dem si ay atelier di di di liggéey. cinq ans bi ma ci duggee léegi parce que formation bi rek def naa ko trois ans bi ma paree si formation bi si la nekk sama kër ubbi sama atelier nekk fi di def vente en ligne damay ñaw samay proche dañuy xool bu rafetee ñu ñu ñu bu ñu solee mu rafet ñu woo keneen bu ko ainsi de suite ainsi de suite waaw fan nga Design waa Design dafa nekk tur bu neex ku sori si man muy sama yaay turam original turu ndar ndar mu neex ma lool ma Design est-ce que benoît Design moo ngi participer ci ay défilé wala moo ngi ñawal ñi nga xamante ne tey ay influenceur lañu. wa participer participer gul nak ci ay défilé yoyu mais sama prof bi ma jàngal monsieur d'enfa maa ngi koy nuyu de passage koku instant yi ñu ngi ci di liggéey pour ay défilé yoyu pour ma ci commencer di participer mais nañ ñaan daal yàlla baax na. ñu dégg sànq ci say biiru wax nga ne yaa ngi def sa commerce bu ndaw commerce yi da koy def euh, en ligne wala li nga xamantene ne du ngi lay fekk si fii sa biir kër nga wan leen ko la. waa commerce bi vente en ligne la damay dugal comme ni ko ni gars di defee rek après nit ñi dañuy commander ñu livrer la sa commande du tardé du def dara dañ lay livrer li nga bëgg rek loolu lañ lay jaay. ndaaram ñu gis ne ñawkat yu bari suñu ubbee atelier dañuy jox tailleur yi ñu toog di leen ñawal. di leen coacher yow est ce que yow li nga jàng yaa ngi koy pratiquer bu baax yaa ngi nekk si ginnaaw tailleur yi tey jii ku ñëwoon aram ñawal ma ndax di nga mën a toog si machine ñawal ko waa dinaa mën a toog si machine ñawal ko gaa am naa tailleur bu may ñawal parce que xam nga du tout le temps da ngay nekk di ñaw di toog di ñaw loolu doo ko mën mais soo ma woowee tailleur nekku fi dara nekku fi damay jël ma daggal la sa tusi man maa koy dagg ma ñawal la ko

loolu laa si séntu incha allah. Euh, yan ñaw ngay gën a ñaw ñawu góor ñawu jigéen ñawu xale wala yow si lépp ngay yëngu. waa si lépp laay yëngu nag damay ñaw ñawu góor damay ñaw ñawu jigéen damay ñawal xale yi xale yi moom samay xarit lañ dama leen di ñawal yu rafet góor ñi tamit dama leen di def defaral yu rafet ay ensemble de demi saison trois pièces yooyu yëpp dama koy def. tey jii Benoy Design euh, dakaar la yam Sénégal wala moo ngi wala yaa ngi am client yi nga xamante ne nga ngi jóge partout dans le monde. waaw Benoy Design nag yamul Dakar kese waaw damay ñawal waa États-Unis Espagne ñoom ñëpp dama leen di ñawal am na ñu bari ñu nekk foofu dama leen di ñawal. tey jii euh, lan mooy promouvoir sa image Benoy Design ñawal na ma lan mooy wane ne Benoy Design moo la moo ñawal am nga logo wala am nga luy xamante ne moom moo lay mooy wane ni lii ñaw Benoy Design la. waa ñaw Benoy Design boo gisee di nga ko xàmmee parce que dafa am sachet en même temps ñaw yu bari ci ginnaaw day am étiquette am dañ ciy def étiquette Benoy Design ak numéro yépp ci biir. tey jii est-ce que pare nga pour liggéey ak yenn acteurs de cinéma yu bari. ah bien sûr pourquoi pas pare naa pour liggéey ak ñu bari bari bari kañ incha allah dans l'avenir. ndax ñu ñëw tuuti ci sa jaar-jaar euh, ban année nga bàyyi jàng.

ma bay ma arrêté mané pourquoi pas ma dem essayer dem liggéey mais juste que bo démé ci di liggéey xam nga rek Sénégal moy lolu bo amul yenn niveau d'étude yi day metti ma dem pour liggéey may liggéey di liggéey pendant deux ans si la tok nak ma xamné il est temps que ma dem def ben formation ma xol sama ben xarit bo xamné mak mom ño ñoo suñu scolarité yëpp ñoo ko defandoo moom proposé moom mi ngi doon def formation couture moom proposé ne man kañ dem nga def formation couture école CFA maa ngi leen di nuyu de passage monsieur Danfa moom moo ma tette moo ma won yoon moo ma jàngal daal su ma demande ba découragé sax moom moo may insister pour ma gën a continuer loolu moo ma taxaw. kon nag su ma comprendre bu baax bi nga paree jàng da nga jublu directement ci couture bi wala am na yeneen liggéey yoo xamante ne def nga ko wala loo xamante ne yow jaay nga ko. waa amna yu bari yu ma def nak jaay na ndeki jaay na reer ay ngalax ay caakri yoy yep def naa ko avant ma def léegi euh, si couture bi nga dugg est-ce que mën nga ñu wax la mo la ci gëna neex wa couture bi mom lu ma neex moy nga ñawal nit nga xol yere bu rafet nga dag créer ñawal ko mu sol ko mom bu kontaanee rek yow sa xol day sedd comprendre nga bima paré nak nag bañ jox ma sama diplôme ba mu leer ma ni man commencé naa di ñawal ay nit jour bobu première fois bi ma njëkkee ñawal nit mu fay ma jour bobu nek na jour bu ma gën neex ci sama carrière la mo la ci gëna marqué lo xamantene yow do ko faté wala soko xalaté xalaatee rek mën la yok jom. wa sama yaay. sama yaay su ma ko xalaatee su su toogee événement jot nga ñawal ko mu sol ko di la ñaanal man loo rek bu ma ko xoolee rek daf may yokk jom daf may gën a pousser pour ma gën a góor góorlu gën a jàpp sama liggéey. tey jii benn design yow euh, ñaan nga yàlla ñu koy tudd ci ay dëkki-dëkk wala ñu koy séntu fu sori tey jii est-ce que soxla nga financement wala yow mën nga demal sa bopp ba léegi. waa xam nga couture moom. mënoo demal yow kese sa bopp loolu mënul nekk dafa metti parce que couture boo ciy dugg matériel yi yombul da ngay góorlu mais boo amee ku la financé boo amee ay financement yooyu da lay gën a motiver da lay gën a yokk jom nga gën a dem ci kanam daal. bu ngay euh, tëral benn design si ñaata nga commencé ñaata machine nga commencé. waaw bi may tëral benn design benn machine laa am. ben machine la commencé di djuk di daanu bobu ma ngi am ben 30 000 francs ma dem Colobane out ay tissu commencé man ak mairie moy sama copine bi malay wax ñu dem commencé mané ko nañ débuté li ñu jël ay lin ak ay vax di ko patch utal ko ay sac décor sac lin vax euh, lin bi lañu jël patch ci vax bi mu and ak sagam si loolu lañ débuté di ñawal ay góor ensemble aar yi tubay aar ak ay t-shirt di commencé noonu di def nànk-nànk ba yàlla indi ñu ngi sant daal. kon tey jii mën naa wax say proche ak euh, ñi nga xamante ne ñoom bi ñu la gis euh, via say say production ñan nga ci gën a am client ñan ñooy gën a ñëw. waa sama famille sama famille moom jàppale nañ ma bu baax a baax a baax a baax a baax ñoom dañuy sol seen dem. ñu ne leen rafet na ñu ne ko carrément sama lii moom ma ñawal sama jarbaat wara sama rakk wara sama mag moom a ñawal ñu indi ma ñawal leen ñoom tamit ainsi de suite ainsi de suite sama famille daal maa ngi leen di gërëm di leen sant macha allah ak samay xarit ñoom jàpp nañ si bu baax a baax a baax. tey jii lan ngay conseiller jeunes yi nga xamante ne bëgg nañu dugg si ñaw te amuñu moyen wala ragal nañu. waa ñaw moom boo ragalee rek doo dem ñaw am fit la boo ragalee rek doo dem. nit ki mën nga commencer nank-nank dërëm mën na jur ay millions dërëm it mën na jur ay milliards motax affaire yi nank-nank la rek buñu tit buñu ragal nañu commencer di def nank-nank buñu xey rek tamit comme ni ngay gis léegi da ngay xey rek gis ko ubi place def ci ay machine tout ça il faut nga am toute expérience ba paré même bu dul dara man ba léegi ma ngi ni dama bëgg dem wat parce que expérience ci ñaw du doy expérience ci ñaw du doy boo toogee nag tout le temps nga ne damay ut machine am na ñu bari noonu la ñuy def ut seeni machine seeni bagage commencé ut seeni tailleur tey bu tailleur bi ñëwut yow nan ngay def léegi nag maa leen di wax daal jeunes yi ñu góorgóorlu bu dee bëgg na ñaw bi nañ ci def fulla ak fayda ak jom buñ ko defee rek dinañ ci gis avancement. tey jii si ñaw bi ngay yëngu soo amoon borom kër est-ce que di nga mën a allier les deux gérer vie sa vie de

tegee côté ba ba def li ñu war a def yépp bu boobaa nañu ñu jublu si liggéey mën nañ ko cumuler loolu dara nekk si. Ndeye Arame dama lay bàyyi nga tàggatoo suñu mbokk internet yi joxe sa moo de la fin. waa maa ngi leen di gërëm di leen santu Ndeye di gërëm waa SDTV di leen wax kontaan naa torop parce que lii dafa neex jeunes yi ñun ñi nga xam ne kenn peut-être kenn miinaguñu kenn xamaguñu ngeen leen di lijjanti. di dugg ci ñoom pour mun leen yokk daal waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax kontaan naa torop merci beaucoup. ami cher internaute tey nag ñoo ngi amaloon waxtaan ak ki nga xamante ne mooy nday Arame Codou Niang di yëngu si ñaw di borom Benoy Design mu xamoon ñu lu bari si li nga xamante ne moo ngi moo ngi ciy yëngu wax ñu tamit si jaar-jaaram du ñu def lu du jox leen rendez-vous si seen beneen numéro découverte ici sur la SDTV jërë ngeen jëf.